لك لدى رب الورى كل مرام لك بي يا سيدي حسن احترام جاد لنا باك تعالى عدمنا بك فأنت سيدي خير أنا نويت شكر عليك كلا وكل شيء والكتاب ندام نويت شكر عليك بقلام وخيرها يا سجوامي الكلام هديتي خذ كرما بلا انسرام يا خايدا لي من إلهك المرام تبت لربي ظائرا بذنب ذنب لك وقبله أموت بزام تبت لربي ظائرا بذنب ذنب لك وقبله أموت بزام تبت لربي ظاهرا بذا النظام لك وخبله عبوت ميزام وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم يا رسول الله يا حبيب الله يا خير خلق الله إمام البرايا كسب سيدنا محمد وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم والنبي المنتخى المنير ينير قلب كل مستنير أحمدنا المختار لا يباهى عند الذي بالبرايا باهى نبينا أحمد نور الرسل عليهم أزكى الصلاة المرسل نبينا أحمد نور الأنبياء عليهم أزكى السلام ربيا كتاب أحمد سوى نسى وإنه بخير لن ينسى للمنتقى للمنتقى lil muntaqa lil muntaqa ana ñu bëgg sayyiduna muhammad lil muntaqa alladi taqaddamu sabaq zikrul hakim min iblis labaq alayhi salla bi salaamin sarmada fil ali wal asaabi wa kulli hamida lil المصطفى لدى الإله الواحد نور ينير قلب غير جاحد ألا يسكن أكد في كوني أحمدنا المختار نور الكون أحمدنا أحمدنا المختار نور الكون خدمة خير العالمين فأحمد njabootu cheikh bu Mouhamed Kunti gépp génn nañu teeru la ah, kaddu gi bu yegsee ci cheikh Abdourahman ah dana dana dana dana dana dana tudd ñenn ñi fi ne waaye nuyu cheikh Sidi ah, Mouhamed mi toog nga xam ni tabaarakallahu doomi alaaji ji buu la moom it muy ku baax ànd ak Cheikh Abdourahmane ñëw waaye ñu fekk fii tam ñoom euh, sëñ Abidin Kunta ñoom ñëpp ñu ñëw teew waaye fekk itam euh, tabarakallahu ñoom euh, Cheikh Sidi Yaxya ñoom ñëpp teew nañu ndax su ma limee rek mën na maa mën na maa fàtte waaye nuyu sama nijaay yi ma fi fekk itam ndax ñoom ñëpp ñëw nañu bokkuma di lim ndax bu ma limee rek danaa fàtte te boobaa man naa am ma ma ma ma ma ma waroon a tudd tudd ma te ñaar gis nañu leen kon nag damay bàyyi sëriñ bi ci boppam cheikh bi yëkkati kàddu nuyonteeg cheikh Abdourahman bu noppee mu mu mu mu tontu ko mu mu mu mën a ziyaare xalifa bi nuyonteeg moom tabaarakallahu mu ñaanal ko ndax cheikh Abdourahman maa ngi lay yëgal ni moom jàmm réew mi rek ko tax a jóg. nee na des di ko sant. di julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa nee na ñu ngi am mbégte mu rëy nee na ci ñëw gii ñu ñëw fii ci njaasaan muy dëkku diine muy dëkku jàmm muy dëkk boo xam ni dëkku defarukaay la moo tax saa su ne ne su bis bu mel nii di tero ñuy màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñuy màggal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. képp kuy sénégalais. képp kuy sénégalais. war ngaa ñëw. war tuuti. nampaat tuuti. wéy ca fa nga nee na wéy nag ca fa nga dëkk. tee mu yor la. mu ci at mi yëpp. nee ci ba xew-xew bi. ba xew ne di dellu siwaat loolu moo waral sunu tànk yi ne mu ngi mu ngi ci am mbégte ne gannaaw bi mu nuyoo buntam muy Cheikh Abdourahman mi toog nee na di nuyu aussi nee na porte parole kër gi muy Serigne Abdourahman sunu borom dafay wax ni ay signes. mi ngi yónnee ay signes. pour ñu koy jéem a décrypter. pour ñu koy jéem a décrypter. yërmande nag. yërmande nag. paasewul paasewul. ñaari Abdourahman. ñaari Abdourahman. ne seq ko. nee na loolu signe bu rëy la. maa ciy sant sunu borom. mu ngi ci sant sunu borom. su dafa amoon lu ma lu ma doon ñaanlu. nee su fekkoon dafa am lu ma doon ñaanlu. mbaa lu ma yëg bëgg mu mu xew. nee na mbaa lu mu yëg moom bëgg mu xew. mën naa ni daal loolu nangu na ndax li xew nii muy ñaari seex Abdourahman yi ko seq nee na mu nekk na kéemtaan alhamdulilahi rabbil alamin yàlla sax yàlla sax bi mu bëggee ni mu jàngale yonent bi ne bi bëggee wax mu jàngale yonent bi su fekkee am nga dégg ne su fekkee am nga dégg ci suuratu rahman ne bi mu waxee arrahman daf ci teg alamal quraan. daf ci teg na alamal quraan. soo amee dégg dëgg. soo amee dégg dëgg. ci ngay comprendre. ci ngay comprendre. ni Jibril bi muy indi Iqra. ni Jibril bi muy indi Iqra. moom miinu ko. moom miinu ko. ki mu ko indil moo ko miin. ki mu ko indil nag di rasulillahi moo ko miin. ndax soo jàngee aaya bi. ndax soo jàngee aaya bi. ndax yàlla. yàlla. moo ko moo ko roof ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. moo ko roof ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. la laataa muy wax xalaxal insaan. laataa nag muy wax xalaxal insaan. sàkk boo mu sàkk doomu aadama. ne sàkk googu mu sàkk doomu aadama. dafa bëggoon. dafa bëggoon. sa maam sa maam. yonent bi ne yonent bi. sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam. nekk le témoin. ne nekk le témoin. privilégié. privilégié. bi muy sàkk doomu aadama. bi muy sàkk nag doomu aadama. moo tax mu roof ko alquranul karim. moo tax nag mu roof ko alquranul karim. teewloo ko événement bi. ne teewloo ko nag événement bi. sëriñ bi sëriñ bi. maa ngi lay ziyaara. maa ngi lay ziyaara. di di sant bu wér. ne di sant bu wér. di ci ci teeru bi. ne ci teeru bi. ci ci njaboot gi aussi. ci njaboot gi aussi. yéene yéene. bi ñu am bi ñu am. ci doomu aadama yi ci doomu aadama wax naa ko rek sëñ Abdourahman. ne wax na ko Cheikh Abdourahman. di ko wax teddaange gi ma la bàyyee ne di ko wax te teddaange gi mu ko bàyyee woon. bi fi dellu seewaat. bi mu fi dellu siwaate. noo nee. noo ma ko bàyyee woon. na mu la bàyyee woon. noonu laa ko fekk. ne noonu rek la ko fekke waate. moo may sant bu wér a muy sant nag bu wér a wér a wér. nuyu xalifa bi nag. ne di nuyu nag xalifa bi. ne di suñu waajur. sopp ko lool. nee ñu sopp ko lool. bëgg ko lool bëgg ko lool. di di tabbi. nee di tabbi nag. ci ñaan ci ñaan. yi ko ñëpp di ñaanal. yi ko ñëpp nag di ñaanal. mooy yàlla fi yàgg. mooy yàlla fi yàgg. ànd ak wér. ànd ak wér. yeggale. yeggale yéene. yéene bi mu am. bi mu am romb na sax njaa njaasaan. nee na romb na sax njaasaan. yéene bi mu am. yéene bi mu am. wër na. wër na. na nar na kepp. nee nar na kepp. réew mi réew mii di Sénégal. di Sénégal. muy jàmm ji nga xamante ni. muy jàmm ji nga xamante ni. ñu bëri ñu ñu wër ci sous-région bi. ñu bëri ñu ñu wër nag ci soo région bi. ñàkk nañu ko. ñàkk nañu ko. di ko jéem a defar. di ko jéem a defar. ba jagul ba léegi. ba jagul ba léegi. ci seen i loxo ne ci seen i loxo. jàmm jooju nag jàmm jooju nag. xew fii ci réew mi xew fii ci réew mi. sa suñu waajur wu tedd wi. ne suñu waajur wu tedd wi. mu ngi ciy liggéey. mu ngi ci liggéey. ci wàllu kurus. ne ci wàllu kurus. lu ama am solo. lu ama am solo. ku nekk ci réew mi ne ku nekk ci réew mi. yëg nga loolu yëg nga loolu. moo tax ñu ñëw moo tax ñu ñëw. tànk yii ñu def. ne tànk yii nga xam ni moom la ñu jóge. tànku sant la ne tànku sant la. tànku yeeslu la. tànku yeeslu la. ci njaboot. ci njaboot. gi ñu doon gi ñu ci kër gi ci kër gi. ñu ngi lay sant ñu ngi lay sant sëriñ bi. soo ñëwul woon sax. ne soo ñëwul woon. ñu yem ci sëñ Abdourahman. ne ñu yem ci sëñ Abdourahman. mu jottali ñu suñu nuyoo ci ñëpp. ne mu jottali ñu suñu nuyoo ci ñëpp. dafay daal di doy ne dafay daal di doy sëkk. ci ñun ci ñun. dafay dafay fees suñu xol. dafay fees suñu xol. waaye ndokk nag. waaye ndokk nag. ba ngeen doxalee. ba ngeen doxalee. ni seen maam. ni seen maam. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. daan doxalee daan doxalee. gisuñu. gisuñu. mosuñoo gis. mosuñoo gis. te duñu gisati. te duñu gisati. ku gën a élégant. ku gën ku mel ni sa maam yonent nee na ku mel ni sa maam sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam musuñoo gis musuñoo gis dootuñu gis dootuñu gis mukk ci àdduna ne mukk ci àddina ku tedd ku ku tabe ku ku taxaw taxawaayu gor. ne ku taxaw taxawaayu gor. ku mel ni sa maam. ne ku mel ni sa maam. yonent bi ne yonent bi. sallallahu alayhi moo tax moo tax. fi may daanelee fi muy daanelee bi. ëttu diine boo dem ci réew dañu lay wax ne solution pour réew mi am jàmm ba pare koom bi yëkkatiku. ne solution pour réew mi am jàmm ba noppi koom bi yëkkatiku. dañ lay wax ne. dañ lay wax ni. solution bi. solution bi mi ngi ci sunu maam. mi ngi nag ci sunu maam. ma ma ma jàngat loolu. ma jàngat nag loolu. foo ci dem rek. foo ci dem. dañ lay wax ni solution bi. dañ lay ni solution bi. mi ngi ci ñun mi ngi ci ñun. ma ne waa lu tax kenn ku ne di ko xëcc ci yow. ma ni waaw lu tax kenn ku nekk nag di ko xëcc ci yow. nekkate message bi ñu bëgg a passé. nekkate message bi ñu bëgg a passé. mooy wax ñu ne. mooy wax ñu ni. nekkee solution bi. nekkee solution bi mi ngi ci yonent bi mi ngi ci Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ndaxte. ndaxte. ñi ñu wax ni ñëpp. ñi ñu wax ni ñëpp. am nañu solution bi. am nañu solution bi. ay taalibe. ay taalibe. sa maam yonent bi la. nee neen sa maam yonent bi la. loolu laa comprendre. loolu rek la comprendre. moo tax ma sant bu wér moo tax ma sant bu wér. yal na yàlla dolli jàmm. yal na yàlla dolli jàmm. yàlla yàggal seen taxawaay. fii ñi ñu ne. ak ci réew mi. yéene ak yéene. bi ngeen am ci réew mi. bi ngeen am nag ci réew mi. lépp di jàmm lépp nag di jàmm. maa ngi lay sant. di la gërëm di la gërëm. ci teewaay bi ci teewaay bi. nga jottalil ñu. nga jottalil ñu. sunu sant sunu sant. gu rëy gu rëy. ci njaboot gi yëpp ci njaboot gi yëpp. ak képp ku yeewoo. ak képp ku yeewoo. fii ci Ndiassane fii ci Ndiassane. alxaqu min rabbikum alxaqu min rabbikum. fa man shaa fal yu'min. fa man shaa fal yu'min. wa man shaa fal yakfur. wa man shaa fal yakfur. wasalaamu aleykum wasalaamu aleykum. wa rahmatullahi wa rahmatullahi taala wa barakatuh. sëñ Abdourahmane mu ngi nuyu mbooloo mi nee na leen asalaamu aleykum. aleykum wa nee mi ngi nuyu tamit cheikh Alassane Salaan mii toog ci kàddu ci kàddu bi ak kàddu njaboot bi cant di jaarale nuyoo bi ak cant gi ak ñaan gi gi ak ndokkeel gi ak yëg bu kawe bi ñu ko yëg ak ak yëg bu kawe bi ñu ko yëg. nee na ñu ngi koy jaarale ci yow. nee na nga wàcce ko nag ci ñi nga àndal. kàddu gi dootul gudd. nee na kàddu gi dootul gudd. ndax waxaale nga ma ba noppi. nee na ndax danga koo waxaale ba noppi. bu ñëwee ci ay bokkam. nee na nit bu ñëwee ci bokkam. te gënuñu koo yey gënuñu koo yey ci kër gi. ku ko ku ko ko fekkoon mu dalal la. nee na ku ko fa fekkoon mu dalal la. kooku bu waxee waxaale nee na kooku day bu waxee waxaale na la de. jëfal na nee na jëfal na la tamit. loolu moo ci kër nee na loolu moo xew ci kër gi. xanaa kay dama yéemu rek. nee na xanaa kay dafa yéemu rek. ci dégg bu bees bi ma am. nee na ci dégg bu bees bi nga xamante ni moom la am. ci diggante Iqra. ci diggante Iqra. ak arrahmaanu allama alquran. arrahmaanu alquran. allama alquran. allama alquran. iqra. iqra. bi ko Jibril di wax yonent bi. nee na bi ko Jibril di wax yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. ci gaaru xiraa. joxal kii. ci gaaru xiraa. ci gaaru xiraa. jox ko ko pour jàngal ko comme ni mu ko waxee. sëriñ bi nee na joxu ko ko pour jàngal ko ngëm ni nga ko waxee. waaye daf ko jox pour jàngal bi. waaye daf ko ko jox ngir jàngal umma bi. la cay firnde. nee na la cay firnde. mooy aaye ba nga wax. nee na mooy aaye ba nga wax. arrahmaanu allama alquran. arrahmaanu allama alquran. yàlla moo jàngale alquran. nee na yàlla moo jàngale alquran. ci boppam. moom ci boppam. waxul ni. waxul ni. dama yónnee. damaa yónnee de. waxul ni. waxul ni. intermédiaire laa wut. intermédiaire laa wut. kon dafa mel ni. kon dafa mel ni. la mu jëflanteel ak yonent la mu jëflanteel ak yonent bi. ca xaar ba. ca xaar ba. loolu umma bee nee na loolu daal umma bi ñoo tax. loolu it dañ koo firndeel. nee na loolu it dañ koo firndeel. Cheikh Abdul Qadir Jeylaani. nee na Cheikh Abdul Qadir Jeylaani. radiyallahu anhu. radiyallahu anhu. dafa am bés. dafa am bés. mu ñëw Medina. nee na mu ñëw Medina. ci jàkkee yonent bi. nee na ci jàkkee yonent bi. fekk ku fekk kuy jàngale xadis. nee na fekk fa ku fay jàngale xadis. ñu naan ko Abdul Razaq. na ñu naan kan Abdul Razaq. moom mu ñëw dugg ci jàkkee yonent bi. nee na moom mu ñëw dugg ci jàkkee yonent bi. julli ñaari rakka. julli ñaari rakka. daal di jël ñaari loxoom. daal di jël ñaari loxoom. teg ko ci ñaari bëti oomam. teg ko ci ñaari bëti oomam. daal di sëgal bopp bi teg ko ci loxo yi. daal di sëgal boppam teg ko ci ay loxoom. Seydina Xadir. nee na Seyduna Xadir. alayhi salaam alayhi salaam. mu dugg si mu dugg si. julli ñaari rakka julli ñaari rakka. ñëw fekk ko moom Abdou Khader fi mu sëgg. ñëw fekk Cheikh Abdou Khader Jeylaani fi mu sëgg. mu kobos ko ak baaraami tànkam. nee na mu yëngal ko ak baaraami tànkam. Cheikh Abdou Khader geesu ko. nee na Cheikh Abdou Khader Jeylaani geesu ko. mu wax ko ne ko. mu wax ko ni ko. li ma la taaxudil xadiisa min Abdir Razaq. lu tax lu tax. doo dem jàng xadis. doo dem jàngi xadis. ci Abdul Razaq ci Abdul Razaq. Cheikh Abdul Qadir ne ko. Cheikh Abdul Qadir ni ko. in kaana hunaaka man yataallamu min Abdul Razaq fa hunaaka man yataallamu min Razaq. Mhm. su fekkee ni. su fekkee ni. am na kuy jàng ci Abdul Razaq. am na kuy jàng ni ci Abdul Razaq. am na koo xam ni. am na koo xam ni. ma ngay jàng. ma ngay jàng. ci ki nga xam ci muy Razaq ci boppam muy yàlla ci boppam. ci muy Razaq ci boppam muy yàlla ci boppam. xadar ne ko. nee na xadar alayhi salaam ni ko. in saxat maqaalatuka fa su fekkee li dëgg nee na bu fekkente ni li ngay wax dëgg la. man man may li tax xadar laaj loolu. nee na li tax xadar alayhi salaam laaj loolu. du wàllu yëpp ñoo ko mën a xàmmee. du wàllu yëpp ñoo mën a xàmmee loolu de. waaye ñi yàlla tànn. waaye ñi yàlla tànn. ci biir wàllu yi ci biir wàllu yi. ñoom rek. ñoom rek nag ñoo mën a xàmmee xadr alayhi salaam. lan la ko cheikh tontu. nee na lan la ko cheikh tontu. daf ko ni ko ni. in saxat farasati fa antal xadr. Mhm. su fekkee sama gis naxu nee na bu fekkente ni sama gis-gis naxu ma. yow yaay xadr yow yaay xadr. looloo tax ñu wax ni. looloo tax ñu wax ni. ci péeyum yàlla. ci péeyum yàlla. Cheikh Abdoul Khadir. Cheikh moo ci raw Khadir. moo ci raw Khadir. ndax xàmmee na ko. ndax xàmmee na ko. te Khadir xàmmewul te Khadir xàmmewul Cheikh Abdoul Khadir Jeylaani. loolu moo tax moo nee na loolu moom moo tax sëriñ bi wax ni. dama gindeekuwaat. daa gindeekuwaat. ci bind bii nga xam ni wax nga ci bind bii muy njàngale mii nga waxaat léegi. alhamdulilahi rabbil alamin. nee na alhamdulilahi rabbil alamin. fi may tëjee. nee na fi muy tëjee kàddoom. mooy li Anushirwan waxoon. la Anushirwan waxoon rek. benn buuru perse nee na benn buuru perse la. dafa waxoon ni. dafa waxoon ni. bi mu bi mu laajee. bi mu laajee. ne lan moo gën ci nit. ni dund lan moo gën ci nit pour mu dund. ñu ñu ne ko xanaa xel. xel mu rafet. nee na xel mu rafet. moo gën ci nit. moo gën ci nit. pour mu dund pour mu dund. mu ne leen waaw bu ko amul. mu ne leen waaw bu ko kooko amul nag. mu ne na am bokk yu baax. mu ne leen na am ay bokk yu baax. yu ko wër yu ko wër. sàkket ko sàkket ko. suturaal ko suturaal ko. moo gën ca moom. ñu ne waaw bu ko amul. ñu ne waaw bu ko amul. mu ne ah na loxoom jot gannaawam. na loxoom jot gannaawam. mu am alal mu am alal. mën am bokk yu bees. mën a am bokk yu bees. am am xarit yu bees. am àndandoo am àndandoo yu bees. ba bu jógee rek. ba bu ñu topp ñoom ñëpp ñu topp ko. leen waaw bu amul loola nag. Ah. na noppi. sëriñ bi nee na ñu mu ne na noppi. te muuma. te muuma nag. te tëx te tëx. ñu ne waaw bu ko mënul. ñu ne waaw bu ko mënul. mu ne kon nag gas kàmbu mu ne kon nag na gas kàmbu bàmmeelam daal. boo amul xel. boo amul xel. amoo bokk yu baax. yu baax. sa loxo jotul sa loxo jotul sa ginnaaw. nga ni doo dégg. nga ni doo dégg. te loo dégg wax ko. te loo dégg wax ko. Ah, nee na xamal ni daal di nga dee. ndax amul dara lu nee na ndaxte amul dara lu la mën a aarati. li am solo nee na li am solo daal. moo di nit ki moo di nit ki. képp kuy ànd ak moom képp kuy ànd ak moom. na ànd ak moom ngir yàlla. na ànd ak moom ngir yàlla. ndaxte lépp loo gis. lu dul yàlla ci nit ki. lu dul yàlla ci nit ki. dafa nuyoo si. dafa nuyoo si. mën naa romb. mën naa romb. kooka mën na ko faa ba. it mën na ko faa ba. am solo nee na li am solo daal. fii ci dëkk bii di Ndiassane. fii ci dëkk bii nga xam ni mooy Ndiassane. ak kóllëre yi yàlla jox. ak kóllëre yi nga xamante ni sunu borom dénk na la ko fi. ci jamonoy Alaaji Mambu. ci jamonoy Serigne Alaaji Mambu. ba ci njabootam. ba ci njabootam. ngay nemmeeku kóllëre. nee na ngay nemmeeku kóllëre googa. ba ñëw war a seet si Cheikh Albekaay mii. ba ñëw war a seet si Serigne Ndiassane Cheikh Albekaay mii. na ni nee na la wóor ni nag. kuy texe tey. kuy tey. mbaa ngay kawe. ci koy jàng. nee na ci ñun ñii nga koy jànge. sa ñëw nee na sa ñëw daal. dafa ñoo kaweel. dafa ñoo kaweel. ñu yëg ko lool nee na ñu yëg ko lool. ndax gan nga xam nee na ndaxte gan nga goo xam ni. foo wàcc ci Sénégal tey. foo wàcc ci Sénégal tey. ñu ne kii Cheikh Alassane Salaam. ñu ne kii Cheikh Alassane Salaam la. ña nee na ña lay réere. nee na bareetul de. li ñu nee na li ñu lay ñaanal daal. moo moo di. li la yàlla dénk. li la yàlla dénk. yal na la ko yàlla aaral boppam. yal na la ko yàlla borom bi aaral boppam. yal na la ko yàlla aaral ak boppam. nee na yal na la ko yàlla aaralal ak boppam. yal ak boppam. nee fii daal dëkku diine la. di dëkku nit ku baax. di dëkk nit ku baax. te it nag. alhamdulilahi rabbil alamin nee na sëriñ bii di sëriñ Ndiassane yar na njabootam de. nee na li fi way juróom wu tedd wa nekkee woon. ak maamam. nee na ci la sax ak njabootam. nee na ku mat a jàngi. mu yabal la gànnaar. nga dem jàngi. soo xamee dellu si. mën a suqali daara ji. nee na wax na leen tamit ni. ngalla waay. bu ci nit sonn mukk. bu ci nit sonn mukk. mbaa mu tiit mukk. mbaa mu tiit mukk. ba wax lu mu gëmul. ba wax lu mu gëmul. mbaa mu def lu ñu koy yeddee mbaa mu def lu ñu koy yeddee. nee na lii daal ci la Serigne Ndiassane yar ak njabootam. ci la ñu tënku nee na ci la njaboot gi tënku de. di ci dund nag di ci dund nag. nee na alhamdulilahi rabbil alamin. kon yaakaar gi tax nga kon nee na yaakaar gi tax nga ñëw. yàlla bu mu tas. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi lay seedeel ni. nee na ñu ngi lay seedeel ni. Serigne Ba ngi fasante yow kóllëre. Serigne Ndiassane mu ngi fasanteeg yow kóllëre. ak njaboot gi ak njaboot gi. te yàlla rek sunu borom tax. yàlla dong nee na yàlla rek tax. yàlla dong nee na yàlla dong tax nag. nee na li ngay def ci réew mi. ci lu baax ci lu baax. yi jàkka yi. daara yi yi. ñu denc ca bërëb yoo xam ne mënuñu fa ña nga xam ni dañu leen a denc ca bërëb yi ñu mënul génne seen bopp. loolu ñaanal nga sa nee na loolu daal sëriñ bi ñaanal nga sa bopp jëf ju ku ko def nee na jëf ju baax ku ko def yàlla moo fay nee na yàlla lay fay nee na kon jërëjëf jazakallahu xayran nee na yal na yàlla fay la yal na yàlla barkeel la barkeel ñi nga àndal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sëriñ Abdourahman mii nga àndal li li ma li ma tiitaloon mooy li ñu bokk tur. nee na li ko jaaxal daal muy li ñu bokk tur ñoom ñaar. li ñu bokk daal moom moo jaaxal. li ñu bokk tur moo tax. man cheikh bi bi la moom Pape. li nga wax ni ñaari Abdourahman yi nee na li nga wax léegi ni ñaari Abdourahman yi la seq. la nga ca yaakaar. nee na la nga ca yaakaar. yàlla na ko suñu borom def. nee na doomu nit ku baax la. sëtu wàlliwu la. nee na kon yal nañu yàlla taas ci ay barkey maamam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ولسوى قلبي ينقل وقم قلبي يسنه الجميل عن قبيح وليقود نور فيما ليبي علمني من لوقي والقلم من يقود علم ما لم أعلم سلم نفسه الذي هداني لأنه البارس من هداني يعصمني الباقي من الأقدار في دار دنيا وتلك داري مع النبي الملتقى المنير زلم قلبي زلم قلبي زلم قلبي زلم قلبي وقبى بنوري من زن خيرا لا يغني أو يدر فذاك في دارين ذو كد ودر من زن غير الله يغني أو يدر فذاك في دارين ذو كد ودر أدر والنفع من رحمانه ليس من البيدان والسودان أدر ونو من الرحمن من الرحمن أدر ونو من الرحمن ليس من البيدان والسودان